asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu yéen waa leeral ci diine islaam barki démb ba léegi maa ngi leen di déglu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag di leen ziar di leen xamal ni déglu naa leen bu baax man nag maa ngi duggoon ci seen group bi par un lien mais dégg naa ci loo xamante ne nii na ma trop waaye nag quelque part tamit du mën a xari parce que olof yi dañuy naan bitel bu nekk la nekk ci biir rek lay xel yi gis naa li ngeen fi xel yi lépp yéen dangeen ngeen a juddoo Sénégal yàlla boole leen ci nit ñu ñuul ñi ngeen bokk ci Afrique de l'Ouest fekk fi seeni mag seen magu dëkk di ñoo xam ne ay borom baax lañ yàlla da leen a baaxal defuñu ci lislaam lu dul lu rafet jàng alxuraan ak tëgg yonent bi ngeen taxaw ci digg seen plateforme di leen saaga di leen gorojal di leen gàccaayal di leen wax lu ñaaw loo xam ne ni mënoon naa ñàkk moonte mënoon ngeen a song ñi nga xam ne ay yéefar lañu ñuy weex tal te nungu ñoo dugg ci lislaam te yéen ñenn ci yéen yéen a nga seen dëkk mënoon ngeen a bàkkoo tuubal naa nangami nit yu weex takk naa sëy nangami sëy sunu association def na fa benn jàkk def nañ nangam ci lu baax ñu ngay dimbali nangam ci nit ñu ña fa nekk ci ay jullit defe naa ne ci loolu ngeen waroon a góorgóorloo mais ngeen wëlbatiku di yàpp seen palanq mooy mel ni ku nekk ci àll xiif di dagg ci poojam di lekk mooy li ngeen di def seen magum dëkk mii seen magum réew mii ngeen jàpp di leen xas ku mel ni Cheikh Adil Malick ku mel ni Cheikh Ahmed Bamba ku mel ni Cheikh Tidiane ku mel ni Seydina Limaamu ku mel ni Baye Niass ngeen taxaw ci plateforme di leen wax loo xam ne nii weñu ci dal defu leen ko kenn de ngeen koy def ku yàpp sa palank sa bopp nga ko def te yéen loolu ngeen def goro jëlu leen kenn nag seen bopp ngeen goro jël gis nga naar yooyu ak arab yooyu ba keroog ngeen di dee du ngeen nekk nit ñu weex donc ngeen nit ñu ñuul ba pare bokk ngeen ci ñu ñuul ñi ba pare kon nag de jéem leen a olof ndiay nee na li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën caa yées seen magi dëkk yi ngeen di xas wallahi mën ngeen leen a tagg ndax par force ci ñoom ngeen bokk ak lu ngeen yàgg-yàgg Espagne du tax ngeen doonub tubaab lu ngeen yàgg yàgg Arabie Saoudite du tax ngeen doonum naar kon nag ngeen dëggal seen nitu dëkk yi bëgg leen te naw leen te xam ne ay niti lislaam lañu ndax ñoom waxuñu dara lu ñaaw defuñu dara lu ñaaw lu du tagg yonent bi ak bin jàng alxuraan lañ fi nekk ba niñ fi jógee kon nag su ngeen di uh, sikkal ak a ñaawal mënoon ngeen a sikkal ñi nga xam ne ay yéefar lañu duñu jong duñu suñu suñu sawee duñu duñu wisu duñu duñu duñu sangu janaba nekk ay yéefar bàyyi di sëy doom doom di sëy ak nijaay mag ak rakk di sëy ci ñooñee ngeen war a wax bu fekkee am na lu ngeen di wax ci islam ñooñee ngeen war waxal waaye waru leen a fekk seen magi dëkk yi nga xam ne dafa ñu fi lu dul rafet wa waaye fa woy bu baax ngeen di leen gorojal di leen wax lu ñaaw di leen saaga saaga nag képp ku koy def rek wax ju ñaaw jë jëmul fa mu dëkk fa mu jóge la ci saanoom man nag jarul ngeen may génn ci seen groupe bi parce que damay ñëw génn ci léegi parce que lii du groupe boobu dara groupe naafeq kese la ak groupe ñoo xam ne ils son dans la vallée de perdition vous vous êtes plus mécréant que mécréant parce que mécréant mënul paase ki nga dëkk ba nga juddoo di jullit dëkk fa say bokk dëkk fa say mago dëkk dëkk fa nga leen fa ñëkku nekk ba naqari jël ñeneen di leen tiitaroo du ngeen yàgg ba ngeen dooni naar ba addina jeex du ngeen naar noonu ngeen di nekkee dans la vallée du perdition ba dee dikk ngeen dikk vous serez les mécréants les plus abats et vous serez les combustibles de l'enfer sachez-le dès maintenant gis nga sëriñ si ngeen dikki bala ngeen a dee di ngeen ko gis parce que nitu yàlla si yaramam tooke la képp ku ci wax lu ñaaw di nga ko gis jarul ngeen may génn parce que je vais en sortir avec la grande porte et la tête haute mais il fallait que ma wax ak yéen wax leen li ngeen vous n'êtes rien absolument rien et vous ne le serez jamais